dañ fa am problème boo xamante ne nii parce que dañu nekkatut en sécurité parce que euh, teen boo xamante ne nii tele euh, teen bi ëpp na cent ans jamonoy Bouna Ndiaye yi mu fa bënnoon teen boobu presque moom la ñu consommé ba léegi nii te teen bi dañoo nekkatut en sécurité. parce que teen bi dafa wóoratut. dafa dëgëratul daal dafa dëgëratul. pour parce que des fois ay mala dañuy daanu si biir teen ba. te xam nga ndox mi presque des fois danañ toog ay quelque jours duñ mën a naan te xam nga loolu tamit euh, kiiwut euh, laabut exactement laabut te loolu dafa jaaduwut mm. léegi daal fi mu toll ñoo ngi woote wallu bu fekkee ñu ko saleen beneen teen non non non non non fekkee parce que maa ngi dégg ñu naan kaw ki yëpp dëkki kaw yëpp am nañ forage mais ñun moom bu bokkun ci te dañ ñu wax ay PUDC exactement ñun loolu moom dañ koy dégg sax. léegi teen boobu da ngeen bëgg ñu ñu mabal ko wala ñu tëj ko di ko di ko di ko di ko ubbil ko touristes yi ñu koy visité ndax jamonoy buuna nga buuna njaay ga. exact ñun bu ñu joxee forage boo xamante ne nii ñun mën nañ caa di ko consommer rek. ñoom teen boobu buñ ko mënee tëj sax baax na amul benn problème mais l'essentiel daal mooy ah, que. loolu tamit histoire la euh, jàpp na war nañ ko faa bàyyi di ko wisit. non nun ko mën a visite visite visite mais xam nga fi mu toll fajar quatre heures du matin lay jigéen ñi yeewu dañu wëgg xar dañu wëgg nag bidon yi fi mu toll dañ koy duy ba pare doog a dem kër ga te teen ba ak dëkk ba mën na un kilomètre te xam nga ne loolu fi mu toll dafa jaaduwut si jamono joo xamante ni nii ñu ne Sénégal émergent la mais émergent émergent dëkk Meewal Wolof moom bokk ci département la Linguère commune bu Yang Yang